bëgg na nooy na nooy nooy na waay jërë ngeen jëf yéen ñii safan seen site internet bi di 24 actu ñu daal di dellusiwaat ak yéen nag ci seen actu people yi nag ñu daal koy dooree nag ak Sénégal moom nag daal di fësal photo bu Mariane Sifa Diop ak photo bi Youssou Ndour aussi bi di ñu xamal ne moom nag bëgg-bëgg bi nga xam ne nag amoon na ko ngir dem aji Màkka gannaaw nag ba mu génnee àdduna moom Mariane Sifa Diop nekkoon animatrice ci Futurs Médias bi mu génnee àdduna ba léegi nag xel yu bari di dem ci moom gannaaw nag xew-xewu diine bu Baye Mamoun Issa Youssou Ndour nag na ndaje moomee ci la defee jëf ju am solo Lo daal di jël billet Makka daal koy jox papa Mariane Sifa Diop ngir mu dem si xarit yonente bi loolu nag nekk loo xam ne Mariane Sifa Diop yàgg na ko bëgg ca ba muy dund te mu jéewul antu mu nekk nag lu am solo loo xam ne bari na ñoo xam ne ñu ngi koy rafetlu ñu dem ci Dakar ak fekk fa mbër mi ñuy wax wuli wuliwaat ak ma nga fay njaay cekkee police bi bett nekk mbër moom nag muy xam le ne dañu ma ramas dama sonn tay ma fay wuli leen tay ma fay wuli leen ma ngay ma ngay xam le ne nag combat bi xam gum xamoon ne di yomb mbër mi di liiru jaan tamit ma ngi mooy fayalu police yi waaye moom mbër mi di wuli ma nga koy xamal ne te dafa dof te moom du moom du bëre dof ndax day wax wax yi dof rek te moom day kaf di neexal ñu dem site internet bi di Dakar Midi foofa nag ña nga fay fekk photo Marichou Marichou moom série ma nga fay fësal ab taaram ci yére bu mu solo di couleur noir ñu internet bi ñuy wax Dakar Buzz fekk fa mbirum Pape ci li ñu ko tuumaaloon moom nag yëkkati ne kàddu jëmale ca lu ni mel di xamle ne yëg woon na lool ci moment bi ñu koy tuumaal ak bi coow lu bare muy xamle ne eh, àdduna du yàgg ba def lu ñaawee noonu ndax jullit la eh, te jéggal na ñëpp jërë ngeen jëf mbokk yi dina nga indiloon ci acte people yi